fii euh, grand théâtre soxna yaa xam islam et voisinage mooy thème mu tey bi dina ñu fi dalal nag euh, ci kanam suñu invité bi nga imam Jibril euh, ñun gën koo xam ci Zakaria Cissé nekk islamologue et chercheur waaye tamit Mouhamed Chérif Diop bu Sénégal international soxna yaa xam xanaa fi mu rek comme dog baa ngi waaj a jot soxna Fatma daf ñuy soxla daf ñuy itam dañu ko Fatma rek tey foo ñu yóbbu ci jërëjëf soxna Rougui mm-hmm. kon nag tey nag dama toog sama kër ñu fekk si ma à domicile ah, <laughs> mu ngi noonu nag koor gaa ngi dem yaram ñuy commencé di sonn yenn saa na nga xaw a toog à domicile recevoir nit ñi foofu donc mu ngi nii indil naa leen tey ay salé comme d'habitude mm-hmm. tacos indil leen ay viennoiserie mm-hmm. indil leen cake di ci ànd ak sunu Nescafé Nescafé Jar di ci ànd ak Nescafé filtre ma ñëw nag daal di xelli sama kaas xaar ndànk ndog imam nodd ndogu jot ñu daal di jàll si ndogu bi waaw xanaa après affaire bi xam nga <laughs> micro-ondes yaa ngi fii nii. ñu tàngal ko parce que euh, il est conseillé nga jiital lu tàng ci sa biir laata ngay commencer dog attention dog jotagul de. des na tuuti <laughs> merci na yaa xam kon maa ngi leen di souhaiter ndogu jàmm di leen ñaanal ndogu jàmm ak salaam. di xaar imam ndodd nag.

dëkkandoo soxna yaa xam ndax dëkkandoo nag eh, dafa am solo dañ naan dëkkandoo jàmm ca gën kon lépp loo xamante ne ci wàllum dëkkandoo la jëm defe naa ne dañ cee war a bàyyi xel bu baax a baax internet yi defe naa ñi ngi ci biir soxna yaa xam ndax yàkkamti nañu ñu tàmbali bi rek ba question yi ñu daal di waaw euh, la grande Toumani euh, Toumani c'est un plaisir di euh, feggo ak yow alors Toumani ñu ñëw ak yow ci ay question mhm. laata nag ñuy rendre l'antenne parce que dañu leen di fàttali au euh, uh-huh. euh, nouvelle maison euh, pour match amical Sénégal Bénin en direct sur la RTS tout à fait, les lignes. Rappelez que le numéro, c'est le 77 473 92 74 parmi nous, nga un un message nous ku ci mel ni Cheikh Diop nous avons envoyé message depuis Touba ni nous ni Touba mi 121 km. carrés alors une ñaari question yi nga xamante c'est mhm. par rapport à disons mariage ak tas divorce c'est une dame qui nous écrit Nuit les nuits, celle de Machallah. elle dit je voudrais savoir en cas de divorce et que le père ne s'occupe plus de sa fille une fois adulte est-ce que sa mère peut donner sa fille en mariage par le biais de son frère en plus en cas de décès du père qui doit donner en mariage la fille est-ce que les frères du père ou les frères de la mère peuvent donner en mariage euh, la fille Madame

ndijaay du kilifa ci sëy <laughs> loolu mooy kilifa ci sëy way jur bu góor nag ñàkk a def lu ko war teewul li ko yàlla jox moo ko moom toujours léeg-léeg dina am mbir yoo xamante ne doom doomi aadama mooy dund gàcca mm. mooy dundu gàccam mais ñàkk def li ko war taxul nit ki def loo xamante ne kenn mayu la ko léeg-léeg nit ñi olof di wax ne ku am kër baay am kër ndey mm. <laughs> pas ci pas ci mariage ndijaay du du du maye donc ñiy maye ci ngiruk imam malik mooy li ñuy tuddee al asaba mooy ñi nga xamante ne moom la al asab mooy sa papa sa maam sa frère papa sa frère ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñooy même bu fekkente ne waajur wi dafa génn àdduna tamit kii bi day toxu parce que nijaay du donn léegi est que euh, euh, nijaay du maye est-ce que nijaay dina ñaanali xam nga ñaan góor góor góor moom buy takk jabar ku mu tàggu daf ko mu tàggu daf ko daf jox na la cër ku mu tàggu daf la jox cër waaw mais fi ñuy waxee mooy jigéen yonent bi sallallahu alayhi wa dafay wax ne laa nikaaxa illa bi wali sëy munta am lu dul kilifa mu préciser ne ayyama mraatin nukihat bi gayri idni waliyaha fa nikahuha batilun bépp jigéen joo xamante ne takkees nañ la ci lu dul ndigalu sa kilifa sa sëy boobu neen la baaxul baaxul baaxul donc loolu moo tax ndijaay si tënk en résumé ñu ñëwee ci wàlluk l'islam al waliyu ndijaay du wali léegi nag ndijaay mu sauf ko buñ ko bàyyalee ala sabilil misaal sa papa ne la bàyyale naa la kii nii donc su la nit ki ku la sa pappa bàyyalee bu boobaa kooku mën na laa maye parce que sa papa ah, moo summi mbubu bu mu waroon a sol solol ko kooku kantaan nag léeg-léeg bu fekkente ne divergence am na ci ñaari famille yi nga gis jigéen ju yeew ndiggam naan kaay fii nii ku am kër baay am kër yaay la <laughs> say frère mënuñu maye sa sa sa doom

bi ci njëkk mooy faatu <laughs> faatu bu amee say say jeex na ñaareel ba mooy fase ñetteel ba mooy summeeku ñeenteel ba mooy tas fasx mooy ñu tas fase nag ku góor moo koy def te góor bu fasewul soxnaam jibalul li nga xamante ne moom mooy kàddu gi sëy bi mu ngi fa ba léegi parce que yàlla moom la ko jox sa papa munul fase sa soxna seen di jaay mënul fase sa soxna donc kii fase mooy góor mooy fase moo moom kàddu gi mm-hmm. et foofu dégg bàyyi leen xel bu baax li ma fase laa wax mm-hmm. mooy wax fase naa la góor moo ko moom su fekkente ne góor waxul soxnaam fase naa la bu boobaa sëy ba mu ngi fa léegi nag jigéen su fekkente ne ku góor dafa abusé dafa def abus de kii nii pouvoir mm-hmm. joxewul kàddug fase mu ñëw waxtaan ak moom pour summeeku mu bañ l'islam may na ko mu dem ci yoon su demee ci yoon yoon tas sëy bi même bu góor gi bu waxul fase naa la sëy bi tas na xaw ma nag moom ndax soxna si bu fekkente ne soxna si demul tribunal ñu tas sëy bi summeekuwul bu boobaa su duggee ci beneen sëy dugg na ci kaw sëy te je pense que ne loolu loi bi da koy tere lislaam tamit daf ko daf ko tere moom la ñu tuddee bigamie xaw ma waaw donc loolu kii mais nag góor ñi ñu bàyyi xel léeg-léeg nga gis góor goo xamante ne yàlla daganal na ko mu takk benn ñaar ñett ñeent mu yore benn jigéen joxu mayu ko li nga xamante ne moom mooy baatam nekk ci ólalaawam di gunnaa di di di ba pare mu xañ ku jigéen ki bu boobaa jigéen ki l'islam may na ko mu dem ci yoon pour yoon tas sëy bi moo tax ma ne fase moo am summeeku ak tas tas tribunal moo koy def bu tribunal tassé léeg-léeg nga tassé góor mu ne la sama soxna mayu ma ko tribunal la dem tribunal tass effectivement tribunal dafay tas sinon tooñ dafay dafay am euh, xamna nak nag ben affaire moma jaxal parce que ñun ah. am thème bo xamné day wax mariage mhm. légui euh, suñu internet yi ñu ngi anticiper xamna né ne dinañu ci ñew largement parce que thème la bo xamné dañ ko nar développer fi tumaani tout à fait les Linguères xam nga internet ci bo len xasee ba dugg plateau ba lancer thème rek nañ leen di mhm. suivre uh-huh. lool bo len wan ne justement à part depuis 18 heures nous suivons petit à petit de poser cette question alors si tu le permets Bataille, on a une autre question par rapport à Oustas, par rapport ak à la ak ah, est-ce que le lendemain waaw le lendemain mun na woor bu wooree dañ koy nangu parce que naafila bi jotewul dara ak li nga xamante ni moom mooy koor gi mais nag lan moo lëkkale diggante koor ak julli naafila mm-hmm. koor farata la goo xam ne yàlla subhaanahu wa moo ko farataal ci jullit ñi mu nekk lu obligatoire naafila yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko sunnaal moo ko yoonal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ku woor weeru koor ci gëm goo gëm yàlla yaakaar goo yaakaar payoruk yàlla yàlla jéggal la say bàkkaar mu wax ci beneen xadis man qaama ramadana ku naafi la guddi weeru koor di gëm goo gëm yàlla ak li nga xamante ne moom mooy euh, ak li nga xamante ne moom mooy euh, yaakaar yàlla yàlla subhanahu wa da lay jéggal sa bakkar donc naafi gi certes jokkoowul ak li nga xamante ne moom mooy koor gi mais bu ko nit ki di def dafay am li nga xamante ne moom mooy ay ay ay tuyaaba et loolu juste rek pour nit ki mun a nekk benn genre stage ci biir weeru koor pour mu tàmm lay guddi macha Oustas. Les Linguère des questions yi mi ngi continuer hein. avant mhm. nag may terminer la question bi me remercier ku ci Aminata Sidibé mi nga xam depuis la France ku ci Mokhtar Senghor mais également Koumba Diouf imam Oustas. question bi top pour internet bi De ni de leen déjà Mais par rapport à Sangou farata la si tu faisais Sangou farata et que tu oublies de faire une partie et que pendant la douche tu te rappelles que tu as sauté une partie, qu'est-ce qu'on doit faire Madame julli farata euh, sangu farata dem ba ci biir mu partie bu mu bu mu war tooyal rek comme que ndox mi kii wagul na tooyal partie bi xam nga boroom xam-xam yi dañuy wax ne sangu seet définition bu bu bu kii eh, bu ñu delloo ci digitalu eh, RTS am na benn émission spéciale boo xamante ne def nañ ko ci wàllu sangu set ñu ngi wax ne sangu set moom mooy nit ki tooyal yaramam mm-hmm. yëpp ndox mm-hmm. soo tooyalee sa yaram bi yëpp ndox mm-hmm. sa sangu set wàcc na seulement dafa am formule boo xamante ni moom mooy bi gën a bi gën a baax léegi soo jàppoo ba pare mm-hmm. xësee ba jàpp moo xam dafa am fo yéexee fexel ba bala ngay génn ci douche nga toyal yaram bi yëpp. tout à fait et li nga li nga excuse-moi juste pour retrouver justement émission yooyu mu wax même bu Facebook. Mhm. YouTube niñ ko bindé ak oustaz ni ko waxé sangu set bi non ngeen ko mëna retrouver également sur ay plateformes digitales notamment YouTube Les Linguères. macha allah ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax baax Toumani toujours un plaisir. Euh, di fegoog yow euh, dañuy euh, nuyu nak Fatima Sow madame Cissé moy yaayu ñaari Mohamed macha allah yal na yàlla guddal seen fan ñoo ngi lay sant bu baax a baax imaam oustaz euh, xëy na dañuy ñëw ci ñaan nag parce que nag euh, weeru ñaan la te ñaan yi moom c'est <laughs> important waaw euh, ñu ngi jaajëfal sunu élève comme que keroog macha allah tari tari bu kii donc faaw ñu jël li nga xamante ne moom mooy bu bees <laughs> donc di wax rek ne mu jënteelu ñaan bi ñu jàngoon moo di ne بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم سهنا فاطم لولو مو نيك نيان بو خامن فاطمه دي موس مو نيك نيان بو خامن تاني يونت بي صلى الله عليه وسلم دا فا واخني جوليت بي بو ييو واخ كو 3 فوا امول لوكاي لور با جوت bu ngoon jotee mu wax ko amul lu koy lor ba suba jot tey nag ñu ngi fas yéene jël ñaan boo xamante ne bu bees la. ñaan boo xamante ne jullit bu nekk war na ko mooy mokkal du moins. Mhm. ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daka mhm. daan ñaan mu jàngale ko. Mhm. ñaan bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne. amul benn jullit muy wàcc ci bërëb. par exemple nga tukki ñëw ci bërëb bi boo wàccee. wala nga dem déplacer quelque part nga wax ko wala bu timis jotee nga wax ko ba soo ko waxee amul lenn loo xamante ne da lay lor ba keroog ngay juge foofu boo ko mm-hmm. waxee timis bu jotee amul lenn lu lay lor ba suba ba suba jot bi maanaam ñaanuk musluwaay la ñaanuk kiiraay la ñi nga xamante ne ñoo am ay tout tànk tamit profito leen ngeen mokkal ñaan bi di ko léemoo seeni doom mm-hmm. te moo di ne أعوذ بكلمات الله بكلمات الله التامات التامات من شر من شر ما خلق ما خلق أعوذ أعوذ بكلمات الله بكلمات الله التامات التامات من شر من شر ما خلق ما خلق mu nekk بو boo xamante ام bu am solo la bi maanaam maa ngi làqatoo maa ngi chercher protection ci loraange lépp lu yàlla bind soxna yaa xam est-ce que am na <laughs> luy dox ci kaw suuf te yàlla bind ko. Mm-hmm. moo bind lépp moo moom effectivement yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku wàcc ci bërëb nga wax ko. Mm-hmm. amul luy raam moo xam jaan la jiit la jinne la lu munti doon amul loo xamante ne dina la lor ba keroog nga fay jóge. li ñuy wax repeat. ayca donc ñu dem a aoudu yow mi toog sa saal répétel ak ñun aoudu aoudu bi kalimatillahi bi kalimatillahi attammati attammati min sharri min sharri ma khalaqa ma khalaqa aoudu aoudu bi kalimatillahi bi kalimatillahi attammati attammati min sharri min sharri ma khalaqa xalaqa maa xalaqa soxna yaa man saa bu ma voyagé waaw su ma yegsee ci dëkk bi mhm. bu may wàcc si oto bi teg waaw lii laay njëkk a wax ñetti yoon parce que loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale boo wàccee ci waruwaay bi moo xam fas nga war loo war mm. booy teg sa tànk ci kii bi nga wax ko mm. yonent bi sallallahu alayhi nee na amul lenn loo xamante ni moo xam ci suuf lay jógee mm. doomi aadama kii lu la mën a lor ba keroog ngay jóge ci bërëb boobu xam léeg-léeg nga dem gaa ne dëkk bi day bañ gan ak yooyu <laughs> donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu li nga xamante ne mooy ñaan bu am solo et sunu doom yi tamit sunu doom yi tamit bu timis jotee ñuy jël sunu loxo teg ko si seen front yi leen jàngal li nga xamante ne moo ñaan bi ëf ko pour yàlla sàmm leen aar leen. Euh, soxna Rougui. waaw euh, ñaan boo xamante ne bii dañuy ñaan. sénégalais yi nga xam ne ñoo ngi seetaan. ñoo ngi leen di ñaan. Mhm. ñun dañ leen koy ñaan. Mhm. ngeen mokkal ko. macha allah parce que nekk na lu am solo te mhm. protection. dafa am solo aussi bien ci ñun que ci sunu ay njaboot. dëgg la je pense que boo leen xoolee ak waa digital. incha allah euh, dañu leen ko daggal. jox leen ko ngeen mën ko bu baax a baax. soxna am naa am na am naa élève bu bees tey muy soxna Toumani incha allah. léegi nag xam naa bu ñu ñëwaatee. <laughs> soxna Toumani dinañ ko testé. incha daal di xool ñoo ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax soxna Rougui. ñoo ngi gërëm. vraiment di sant ñëpp soxna Rougui. ñu ngi gërëm bu baax Toumani ak laaj yi nga xamante ne rek indi na ko fi jottali ko ndax ñun ñëpp dañ ciy jàng ci tontu yi oustaz di tontu soxna yaa xam ma bàyyi la rek daal di. Wow, bu ko defee nag ñu dem match euh, bi euh, euh, plateau d'abord Sénégal bena en direct sur la RTS l'équipe de Tandama vous donne rendez-vous juste après pour la suite juste après nag li nga journal etc. a à tout à l'heure